kilifa yi ñi jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi di jiital ci nuyoo bi ñi nga xam ne ñoo waral bés bi muy Baye networking seen njiit di Cheikh Moubarak Wade ñu ngi koy nuyu ñu ngi nuyu Amadou di nuyu la marraine Musukoro di nuyu mbooleem ñi fi teew di nuyu ñi ma àndal ki ci jiitu muy Seydi Cheikh Ibrahim bin Cheikh Mouhamadul Mahi di ko sant di ko gërëm ci kàddu yi rafet yi mu wax te lépp ci moom la nekk mbaax rekk moo tax mu mën a wax loolu ak am teraanga boroom mbaax mooy gis mbaax feneen boroom teraanga moo mun a gam moo mun a xàmmee teraanga feneen euh, jazakumullahu xeyran ñu ngi leen di jottalil nuyoo sëriñ bi Cheikh Mouhamadul Mahi Ali Cissé mi nga xam ne moom lañ programmé woon ne moo war a def conférence bi waaye ngànta ko te ba tax mu ebal ñu ñun ñëpp pour ñu ñëw teewal ko te mënuñ koo uutu dee uutu nit day laaj la mën nga mën ko lam xam nga xam ko lam doo nga doo ko ñun lam mën mënuñ ko lim doo doowuñ ko dañuy ñëw rekk ngir représenté ñëw rekk ngir def suñ kemtalaay kàttan waaye moom kenn du moom buñ jottalee nuyoo jottalee nu jottali nañ nuyoo pays bi yépp ndax tey moom mooy làmmiñ bi maa ngi ndokkeel ndaw sama mbokk ndaw ñi nga xam ne ñoo initié lii mu ñëw ci waxtu wu am solo waxtu woo xam soxla nañ ko ndax ñëw na ci jamono bari na fitna bari na ay problème bari na duwut ci biir réew mi rek waaye daanaka dafa daj àddina te loolu saa yu mu see am dana am ay borom xel yu sell ak i xalaat yu rafet ay borom xam-xam ay bonne volonté yuy toog di waxtaan di seet nan la ñuy def ba am ay solution yan pexe la ñuy lal ba liñ mën a régler ci problème yi ñu régler ko la ñuy seen itam mu dëgmal si nan fekkee neexut ñu nan la ñuy def ba kar ko mu ne thème bi mooy quel engagement des jeunes de la Fayda pour un développement durable yàlla tabaraka wa taala moo bind nit bind ko ci ñaari am ñaari partie principale yoo xam ne ñoo composé benn bi di jëmm ji beneen bi di roxo léeg-léeg danga gis ay bindkat ku mën a yokku beneen xaaj bu ñetteel corps âme esprit da gis keneen yokku ñetteel waaye du nekk esprit xol lay nekk waaye muy xol di xel mënuñoo nekk lu dul fu jëm ak roxo daje jëmm ban la ban dafa am yu muy laaj ak yu muy bëgg te yu ci bari manam moy yi soufé yi ñi tuddé lu soufé lek nan banex ak yu démé non lolu su ko nit ki topé rek rek rek focaliser wu ci mën na dem ba melni baye may alquran neena baye ma sax mo lay tane su boba ulaika kal an'aami bal hum adal ulaika hum alghafilun roho di leer bu sel boo xam ne itam dafa am lu muy laaj waaye boo ko toppee moom rekk itam ak lim laaj rekk kese kese xëy na mën na laa yéegee ci nekk malaaka te yàlla soxlawut ba muy bind nit soxlawut mu nekk malaaka ni nga xamee ne itam bëggut mu nekk mala nit la soxla ba roxo di nekk roxo kese di wëndeelu ci kàttanal yàlla ci ay monde invisible yàlla waxutoon kenn mu sujjootal ko بجم jëmm di nekk jëmm nekk itam ci ay mondam nekk lam doon yàlla waxut kenn mu sujjootal ko bañ dajee ñoom ñaar nag degg la mbir ma nekk moo yàlla ne inni xaaliqun basharan min tiin fa ida sawaytuhu wa nafaxtu fihi min ruuxi fa qacu lahu saajidin mu ngi wax malaaka yi ne leen maa ngi bind mbindeef moo xam ci ban laa koy bindee ci laay tabaxee jëmmam su ma bare paree ba defal ko forme bi ma bëgg ba ëf ci moom sama roxo maa ngi leen di diggal yéen ñépp na ngeen root su kooku ndax boobu la yelloo nekk xalifa yàlla ci kaw suuf bu nit ki xamee loolu xam ne dafa am ñaar yu nekk ci moom yoo xam ne waru cee sàgg ne benn xam ne àddina bi dañ ko fee indi am na ku ko fi indi kooku mooy boromam daf ko war a gëm am na koo xam ne moo ko fi indi moo mooy boromam daf ko war a gëm moo ko composé ci ñaar yooyu nga xam ne bés buñ tàggoo dee am bés bu roxoog jëmm tàggoo ba dee am fa nga mën a yem ci teral kooka mooy gas ba mu xoot nga suul ko moo moo xam ab yonantu la moo xam baay la moo xam yaay la doom jëkkër jabar gas ba mu xóot nga suur rekk ngay mën ndax la taxoon mu nekk moom neatu fa mooy cocktail boobu may wax univers bi yépp suuf seeg environnement beeg dundu lépp ay may la yu jóge ci yàlla walla waxal ne ay ndénkaane la yu jóge ci yàlla te yàlla lépp lum la dénk da ko ko delloo li la misaal bi mooy dafa mel ni yàllaa tabax ba rafet te loolu sax a am yàllaa tabax ba mu rafet tabax àddina bi def ci ay kaawteefam ak i kéemtaanam ak i mbindeef yu kenn xamul nuñ toll mu jël nit ne ko yow yaay gardien bi lii ma tabax nii yow laa ko dénk yaay maintien yaay wëttu yaay aar yaay sonnee lépp loo xam ne dafay tax dund gi gën a yéwén dund gi gën a yiw dund gi gën a baax yow laa ko dénk te yow laa koy laaj itam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kullukum raain wa kullukum masulun an raayati kenn ku nekk ci yéen sàmm la te kenn ku nekk ci yéen bés dana ñëw ñu laaj ko lam doon sàmm lañ ko sàmmloo woon naka la ko sàmmee lii la lislaam di njëkk a jàngal mooy ne yow sa bopp sax moom moo sa bopp moo tax amoo kenn amul droit rey boppam wax keneen rey keneen waxi noppi kenn itam amul droit rey rey la yow ndax bakkan bi ngay dundee moomoo ko yonent bi sallallahu alayhi wa nee na kaana fi man kaana qablakum rajulun bihi jurxun fa jazia فأخذ سكينا فحز يده فما رقأ الدم حتى مات قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة من أم نتخيد يلين جيتوون بين واجو خمنا دفا موسى أم غانيو غانيو ممتي أفير بسونال كو منا تتمون مجل باكا دق لهم درج جدو سوتي بمدي من يالا ني بي من لي جي من جكلانتك di faat ba kanam xaraamal naa ci moom aljanna du ko dugg mukk yàlla kenn mënta njëkkalanteeg moom yéeneem rek la ko yàlla mbugalee ba tax mu xaraamal ci moom aljanna ndax xëy na bu muñoon ba heure bi mu rey boppam bu jotoon ci lay dee ndax du nekku lim def du nekku ko def rek dee bari na ku jël paaka dagg loxoom te deewul dafa fekk eeram moo jotoon waaye yéene jim am pour faat bakkan bii te yàlla ne ko bakkan bii moomoo ko looloo tax yàlla mbugalee ko loolu alquran ne man qatala nafsan bi gayri nafsin aw fi l fa ka annama qatala nnaasa jamiaan wa man axyaha fa ka annama axya nnaasa jamiaan képp ku faat benn bakkan mu ngi mel ni مغي yépp nga rey gàcce gu toll noonu ngay am bàkkaar bu tool noonu ngay am yenn gu diis noonu ngay lañ lay yen bés penc wa man axyaaha fa ka annama axya naasa jamian ku góorgóorlu itam ba sauvé benn bakkan mu ngi mel ni àddina yépp nga sobe tuyaaba bu tool noonu lañ lay bindal mbaax gu tool noonu ngay am yool gu tool noonu moom ngay am su nit ki xamee loolu xam boroomam xam ne àddina bi ñu ko indi duut lu béel def fi jaar rekk waaye saxuwaay bi feneen la dafay dem foofu la jëm mu ngi mel ni oto yi dajee war a jàll ndox daje ñoom ñëpp dugg ci biir féeri féeri bi kenn taxut kenn fa féeri bi di jëm jëme rekk foofu moo la tax a jug àddina itam féeri la ñépp dañ cee jaar pour am fuñ jëm su boobaa li njëkk a feeñ foofu mooy temps temps waykat ba Muritani waxoon na ne wal umru wal umru muddatuhu ka misli darahimin bi yadi lfata yaqdi biha xaajaatihi خسر لذي عقل لبيب مؤمن وقت يمر ولم يزد حسناته من mu دومي dundu اك تام موغي ملني اورس ak xaalis bi nga xam ne nit ñëpp moom nañuy fajee seen soxla yi kenn du jël urus ak xaalis lam ca am sànni ko ci mbalit te fekk mu ngi ànd ak sagoom mu ngi ànd ak xelam mu ne sa temps bi ngay bàyyi muy dem itam am temps ba ko mu dem mu ngi mel ni urus ak xaalis bi nga am yépp nga jël sànni ko ci mbalit te loolu nit ku nite du ko def temps boobu nag li ci nit ñi am gannaaw nit ci nit ki am gannaaw bi mu juddoo القران تي خاج لاكو سيدلي الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يلا لين بند تي نيو كاتن اك نيو دولي نيت كي بامي سوغا جود مونالوت بوبام دارا لب دنج كو كوي ديفال بيريود بوب بامي ماجيري نيك جين بيريود ديكزونيراسيون فيسكال لا كوي لينوري li ñuy defal entreprise buy soog a ubbi bees jéggal ko li yenn yeneen entreprise yi di fay du ko fay ngir mu mën a taxaw ak ay tànkam nit ki juddu itam loolu la ko yàlla defal fi mu juddoo ba fa muy majeure lépp lu def ci lu baax wa wala sax ay waajuram defal ko ko danañ ko ko bindal lépp lum def ci naka su duut noonu jéggal nañ ko ko duñ ko bindal dara pour mu mën a taxaw ak ay tànkam gannaaw googa gannaaw période boobu période yi ndaw ñëw gannaaw période yi ndaw période yi mag ak tële ñëw période yi ndaw bi nga xam ne mooy siñ tam mooy période doole mooy période yi cawarte mooy période bi nit war a ay responsabilité mooy période bi nit mën a réaliser dara itam moo tax bàyyi na inna kulli watanin إنما يتوقف على على شبابه لا على كل لكن لا على كل الشبان بل على الشبان المثقفين ذوي الأخلاق الحميدة والهمم العالية أما شباب بلا ثقافة ولا أخلاق فغرس بلا ثمر من أفنير ريو منك réew أجوتي أي نوام تاي aju ci من ndawam tey waaye mu ne waxuma خم mu am culture am jukko yu rafet ndaw yu am ay itte yu kawe ndaw ñooñu lay wax waaye ndaw moo xam ne jàngut ndaw moo xam ne amut ju koy rafet mu ne me njëmbat la njëmbat la goo xam ne lu mu yàgg yàgg yàgg du meññi mukk mu ne fa jiddu wajtahidu fi tahsilil ilmi na ngeen farlu góorgóorlu ci sàkku xam-xam première jéego bi war jeune mooy mu jàng sàkku xam-xam moom la la bàyyi digal comme li war jeune taaliba bàyyi la ñuy wax jeune bu nekk looloo ko war waaye ci biir cadre taaliba bàyyi itam loolu la bàyyi njëkk a digle mooy mu sàkku xam-xam wax na ne bu sàkku rekk xam-xam yi farata yeeg naafile yi xam ni ngeen di jullee ni ngeen di ooree ni ngeen di aza ni ngeen di joxee azaka waxuma loolu rek ndax sëriñ buy wax la bu emoon foofu rek mën nañoo foog ne waxam foofu la jëm waaye mu ne waxuma loolu rek paase leen loolu waxuma sax ngeen jàng ay grammaire ak mathématique bu leen am foofu dama ne ngeen dem yëkkati seen itte buuxante jeeg scientifique yi nga xam ne ñu ngi jéem a luñitu mbóot yi gën a ruqe ci diggante asamaan ak suuf dem leen ngeen buuxante jeeg ñooñu ndax yàlla loolu la leen digal afalam yanduru fi malakuti samawati wal ardi wa ma xalaqa allahu min shay yàlla nee na ndax du ngeen ndax xoolu leen ci mbóot ak kaawteef yi nekk ci asamaan ak suuf ak ci lépp lu yàlla bind loolu yàlla ngi lay poussé pour nga am itte dem lu ñu ji loolu noonu lan la te bàyyi bu la digale xam-xam ne mom nga wara jital jiital neex naa dégg ndax mom ci bopam la ko ñëkke ba mi am ñaar fukki at ak ñent ci la bin ñëkke talif téré tu tuddee ruhul adab lu li gëna siw moy 21 ans waaye 24 ans la ndax 1318 la jëddu comme nim ko bindé ci loxom 1342 le talif ruhul adab wax ko ci bir ruhul adab fi aamil isnayni wa arbaina kon 24 ans la am ba mu koy bind ba muy am 24 ans la taalif téere koo xam ne ci âge boobu la taalif téere su la digalee nga jàng war nga koo mën a jëfe ca biir téere boobu mu ngi naan la laa budda an tuqaddima taalluma fa kun li shiraati lilahi muxkima fal amru fal fal ilmu amri hu imaamu lamali كما أتى عن طه خير الرسل حصل علوما أربعا ذا السالك أولها عرفان رب مالك والثاني أن تعرف ما يعلق على العبادات فذا تحقق ثالثها عرفان حال النفس من غدرها وكيدها والدس للنفس عيب للفؤاد عيب للروح عيب ليس فيه ريب من لا بد من تنياك il faut nga jital jang ساكو faut خم nee na la nga war a njëkk sàkku xam-xam ba nga war a njëkk a sàkku mooy fexe ba xam kan moo la bind lan moo tax mu bind la nga fexe nekk ci loolu yàlla boo ko xamee mënoo koo jaamu te xamoo ko te boo ko xamee boo ko bëggee mënoo ko ñàkk gërëmloo boo ko bëggee gërëmloo da nga ko jaamu boo ko bëggee jaamu il faut nga xam ni nga koy jaamoo lan la te jaamu comme nim la ko waxee léegi duut ay julleeg or ak ki yooyu yëpp jaamu la waaye lislaam gën naa yaatu loolu fàttalikul wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu la wax ne al islaamu bid'un wa sab'una shu'ba wala al imaanu alaha la ilaha illa allah wa adnaha imatatu al ada an al tariq wax la ilaha illa allah mooy caabi ngëm waaye mu ne ngëm yaatu na ba nga xam ne fekk xeer bu nekk ci kaw yoon bu mën a fakkatal nit nga yëkkati ko teggi ko foofu sax yonent bi sa alayhi wa sallam mu ne ci ngëm yàlla la bokk gannaaw boo xamee loolu nee na fexeel nga xam jaamu yàlla yiñ la digal nga fexe la ca xam la ca aju ci ay sabab ci ay xikma ay sagesse ay sagesse ak i àtte pour bu nekk nga mën koo def mu jaar yoon Nyatel ba nga xam sa bopp xam yow yaay kan sa bakkan bi nekk ci yow lan la am na bakkan nee bakkan dafa am ay caay-caay dafa am ay pexe léeg-léeg mu rafetalal la dara walla la fii moy buntu yàlla te boo ci duggee seytaan nga ci fekk danga war a xam bakkan boobu ay pexeem ma i caay-caayam pour bum la mën a bum la mën nax war ngaa xam xol xol nee na am na ay sikk nga xam sikki xol yooyu nga moytu ko mbañeel kiñaan soxor rëy yooyu yëpp ci feebari xol la nga fexe ba moytu loolu ruuxu dafa am ay sikk li muy kawe kawe li muy sell sell boo ko bàyyee dana am ay sikk bokk na ci sikk ruux yi bàyyi wax jës mu ruux jës mu ruux mooy roxo gu réer loolu ñaare ñi baax sax lay dal mooy di jaamu yàlla di sellal ba dem ba jàpp ne yow mi kenn féetewu la kaw yow yaa sut ñëpp yaa raw ñëpp yaa gën ñëpp wala mooy waral oote may nangam may nangam may may borom jamono may xutbu zamaan fekk yow sa roxo moo réer roxo gu réer moo tax seytaane di la fooye fekk nekkoo ci dara cheikh abdul qadir al jaylaani radiallahu anhu dafa musa toog bés dégg kàddu gu naan ko yow Abdul Qadir man la sa borom maa ngi lay wax ne lépp loo def ci lu bon jéggal naa la defal lu la neex ci lu bon duma la bindal bàkkaar Cheikh Abdul Qadir ne ko ixsa aduwallah noppil yow noonu bi yàlla bi yàlla nga tos ko de xam naa la Iblis ne ko noo def ba xam ma mu ne koy alquran moo tax ma xam ne lii du yàlla ndax yàlla moo ne inna allaha laa ya'muru bil fahshaay yàlla du dig la lu bon mukk te yow nga ne ma defal lu bon lu la neex moo tax ma xam ne kii wax du yàlla yow la seytaane mu ne ko nag am nga chance sharia moo la génnee ci lii waaye fii ndëgg sarax bii ma la lalal nii sànq naa ci góor yàlla yu bari yoo xam ne demoon nañ ba mat àgg fii ma sànq leen ci lii kon rox dafa am sikk te sikk roxo moo gën a garaaw nit war na cee ba xel ñeenteeli xam-xam bi mu ne fal adaba al adaba yaada saalik fa innahu l baabu li kulli saalik na nga fexee am adab adab baat la boo xam ne danañ koy desee firi baat bu yaatu la boo xam ne xam-xam a ngi ci jukkoo ngi ci lépp la làmboo jukkoy rafet ak tabeeg mbaax ak lépp loo xalaat ci mbaax mu ngi ci biir baati adab boobu étiquette ni ngay jëflanteeg nit ñi ni ngay jëflanteeg sa borom lépp mu ngi ci biir adab bàyyi mu ne yow jeune bi nga xam ne fexe nga ba am xam-xam yele ba pare xam sa boroom xam sa bopp xam sa diine mën a rafetal sa jaamu yàlla nee na fexeel nga am ay jukkoy rafet mën a jëflanteeg nit ñi ci anam boo xam ne anam bu baax lay nekk te loolu yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon ittaqillaha xaytuma kunta wa atbici sayiata alxasanata tamxuha wa xaaliqi nnaasa bi xuluqin xasan na ragal yàlla foo mën a nekk ak ci loo mën a nekk na nga boo rëccee boo rëccilee ba def dara lu lu bon gaawal nga def lu baax mu effacer lu loolu nanga nga ànd ak nit ñi ànd bu rafet baax sell terewut jukkoo ak nit ñëpp jukkooy rafet même ki nga xamné jaarul yoon yow nga jàpp ne yaang ci kaw yoon war nga mëna jëflanté ak mom jëflante ko rafet pour sax nga oyé ko sa jukko mu ñëw fekk ci la ci li nga nek bok na ci li bay dénk ndaw ñi nena len wa iyyakum wat tashabbuha bil muaasirina alladina tagat fihum madda fa inna man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum maa ngi leen di muy tolikuloo yéen ndaw ñi ngeen niru niru lu di roy ñooñ jamono ñi nga xam ne matière rek moo leen tax a jóg xooluñ dara lu may àddina ak zahir bi te moo taxoon ma commencé ne la danga am jëmm am roxo kii li laaj war nga ko ko jox kee li laaj war nga ko ko jox pour équilibre mun a am waaye boo toppee benn bàyyi benn dangay ngay yoon mu ne fa man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum képp koo xam ne mu ngi niru nirul ay nit moom ak ñami niru nirulu ñoo yem su boobaa ci ñoom lañ leen ci moom lañ koy ci ñoom lañ lay lañ koy konte te buñ lay konte war ngaa fexe nga niru nirulu lu baax ak ñu baax ndax ñu boole la ci ñu baax ñi waykat ba ne woon na yaa xaadimal jismi كم تسعى لخدمته أتطلب الربح في مما فيه خسران أقبل على النفس فاستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان يو بيغا خامني ياغي كركري سوبا من غوديك بجك تدرى دارا تاخوت كركري لما يسجم جيم أقلم اك ليم لاي نينا نينا ياغي نينا ياغي ساك نينا yaa ngi sàkku ak lim lay sant nga fàtte moom itam nee na yaa ngi sàkku yaa ngi sàkku ak lim lay sant nee na yaa ngi sàkku yaa ngi sàkku ak lim lay sant nee na yaa ngi sàkku yaa ngi sàkku ak lim lay sant nee na yaa ngi sàkku yaa ngi sàkku ak lim lay sant nee na yaa ngi sàkku yaa ngi sàkku jamono yaa ngi sàkku ak lim lay sant nee na yaa ngi sàkku ak lim lay sant nee na yaa ngi sàkku ak lim nee na yaa ngi sàkku yaa ngi sàkku ak lim lay sant nee na yaa ngi sàkku ak lim lay sant nee na yaa ngi sàkku ak lim lay sant nee na yaa ngi sàkku ak lim nee na ak lim lay sant nee na yaa ngi sàkk ak lim lay sant nee na yaa ngi sàkk ak lim lay sant nee na yaa ngi sàkk ak lim lay sant nee na yaa ngi sàkk ak lim lay sant nee na yaa ngi sàkk ak lim lay sant nee na yaa ngi sàkk ak lim lay sant nee na yaa ngi sàkk ak lim lay sant nee na yaa ngi ak lim lay sant neena na yaa ak lim lay sant nee na mu ne yàlla na yaa ngi ak lim lay sant neena na yaa ak lim lay sant neena l'exemple que je donne très souvent euh naa sama kër dama koy tabax l'architecte dama ko ne doo ko le mensonge sa bi fi koy jëndee ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en passe فإن حب الوطن ciment bi ciment bi et j'en passe et j'en passe ciment bi ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en ciment bi ciment bi et j'en ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en passe ciment ciment bi et j'en ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en passe et j'en ciment bi et j'en ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en ciment ciment bi exemple ciment bi exemple passe ciment bi exemple ciment bi exemple passe bi exemple ciment bi exemple ciment bi exemple passe ciment bi exemple ciment ciment bi exemple ciment bi exemple passe ciment bi exemple passe ciment bi exemple ciment bi exemple passe ciment bi exemple ciment bi exemple ciment bi exemple passe ciment bi exemple ciment bi exemple passe ciment bi exemple ciment bi exemple passe ciment bi exemple ciment bi exemple ciment bi exemple ciment bi exemple passe ciment bi exemple ciment bi exemple passe ciment bi exemple passe ciment bi exemple ciment bi exemple passe ciment bi exemple ciment bi exemple passe ciment bi exemple ciment bi exemple ciment bi exemple ciment bi exemple ciment bi exemple ciment bi exemple ciment bi exemple ciment bi exemple exemple ciment bi exemple ciment bi exemple ciment bi exemple ciment bi exemple ciment bi exemple ciment bi exemple ciment bi exemple ciment bi et j'en passe bi et j'en ciment bi et j'en ciment bi et j'en passe bi et j'en ciment bi et j'en ciment bi et j'en ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en passe et j'en ciment bi mu dégg alquran ciment bi et j'en passe bi et j'en ciment bi ciment bi et j'en passe ciment bi ciment bi ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en passe et j'en ciment ciment bi et ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en passe et j'en ciment bi wala ñu ciment bi ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en passe et j'en ciment ciment bi et ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en passe et j'en ciment bi bañ koy aj mu dem sax ciment bi et en passe ciment bi ciment bi et en passe ciment bi et en passe jeune moo tax ma ne jeune moo ciment bi et en passe ciment bi ciment bi et en passe ciment bi et en passe ciment bi Racine moom mu ne itam wala ciment bi ciment bi et en passe ciment bi et en passe xoj nee na ciment bi bi xam-xam bi mu jàng ba tax ñu ko ciment bi exemple exemple ciment bi ciment bi exemple ciment bi exemple exemple ciment bi ciment bi exemple ciment bi exemple exemple ciment ñëw fi di leen noot ciment waaye fekk. ciment bi ciment bi et en passe. ciment bi et en passe. vingt neuf trente la am. ciment bi ciment bi et en ciment bi et en passe. ciment bi ciment bi et en passe. ciment bi et en passe. ciment bi ciment bi et en passe. ciment bi et en passe. ciment Simabi example. Say Musnad. Simabi example. Simabi example. Example. Simabi. Simabi examples. Simabi examples. Example. Simabi. Simabi example. Simabi examples. Simabi examples. Example. Simabi. Simabi example. Simabi examples. Simabi example. Simabi ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en passe am na ay jeunes yu ne ciment bi ciment bi et j'en ciment bi et j'en passe bi et j'en ciment bi ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en passe et j'en ciment bi ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en passe et j'en ciment bi ciment bi ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en passe ciment bi ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en passe ciment bi ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en passe et j'en passe te lim bind passé na soixante-dix téere ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en passe ciment bi ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en passe et j'en ciment ciment bi et ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en passe et j'en ciment bi ciment bi et j'en ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en passe ciment bi ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en passe et j'en ciment bi ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en passe Sima. ñu ne la wa rasulul wa nabi. Sima bi exemple passe. Sima bi Sima bi. Sima bi Sima bi Sima bi. Sima bi Sima bi Sima bi. Sima bi. Sima bi jàppale. ciment bi exemple pass. ciment bi exemple pass. exemple ciment bi ciment bi exemple pass. ciment bi exemple pass. exemple ciment ciment bi exemple ciment bi exemple pass. ciment bi exemple pass. exemple ciment bi ciment bi exemple ciment bi exemple pass. exemple ciment bi ciment bi exemple pass. ciment bi exemple pass. ciment bi ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en passe et j'en ciment bi ciment bi et j'en ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en ciment bi ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en xamante yaa yoon na ciment bi ciment bi maa leen bind ma ne def leen ñii di ay jigéen def leen ci ciment bi ciment bi exemple ciment bi exemple exemple ciment ciment bi ciment bi exemple ciment bi exemple exemple ciment bi ciment bi exemple ciment bi exemple exemple ciment bi ciment bi exemple ciment bi exemple ko ci yàlla na ci yàlla soppante mooy ciment bi et cetera ciment bi et cetera ciment bi et cetera ciment bi et en passe ciment bi et en passe et en ciment bi ciment bi et en passe ciment bi et en passe et en ciment ciment bi et en ciment bi et en passe ciment bi et en passe ciment bi ciment bi et en ciment bi et en passe et en ciment bi ciment bi et en passe ciment bi manipulation yi ñuy gis ci politique. ciment bi et en passe. et en ciment bi. ciment bi et en passe. ciment bi et en passe. et en ciment ciment bi et en ciment bi et en passe. ciment bi et en passe. et en ciment bi. ciment bi et en ciment bi et en passe. ciment bi et en ku jëkk fëkk la. ciment bi ciment bi exemple ciment bi exemple. ku nekk am nga. ciment bi exemple. exemple ciment ciment bi ciment bi exemple. ciment bi exemple. exemple ciment bi ciment bi exemple. ciment bi exemple. ciment bi exemple. ciment bi ciment bi exemple. ciment bi. ciment bi et en passe et en ciment ciment bi et en ciment bi et en passe ciment bi et en ciment bi ciment bi et en ciment bi et en passe et en ciment bi ciment bi et en passe ciment bi et en passe et en ciment ciment bi bi jiite ciment bi et en ciment bi et en passe ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en passe et j'en passe ciment bi ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en buy julli moom kenn ciment bi ciment bi et j'en ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en passe ciment bi ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en ku rey benn bakkan ciment bi et j'en passe et j'en ciment bi ciment bi ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en passe ciment bi ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en passe ciment bi ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en passe et j'en ciment ciment bi ciment bi et j'en passe ciment bi et j'en passe et j'en ciment bi que danga ciment bi et j'en passe ciment bi ciment bi xam valeur du def loolu ciment bi exemple. remplacé na yonent guddi gàddaay bi. ciment lépp loo xam ne yonent bi sa. ciment bi ciment bi exemple.

ciment jiital ko ci seen kaw. ciment bi ko lislaam ci Madina. ciment bi exemple. ciment yooyu li leen mayoon loolu. ñaari kàttan dañoo boore. jëmm ji ndax ay ndaw. njub nekk ci njub. doo nekk mukk ci njub naxut kenn fenut kenn yoon bi ta are rek insha allah képp kuy sàmm lépp wala nga koy ñoddi ñu ngi ñaanal suñu mission bi ñu nekk yàlla na leen ci ciment bi ñuy ay ndaw yu baax def ñu ciment bi xam ne dana defar réew mi dana yàlla nañu yàlla ciment bi ciment ñu fi itam ñoom تبارك الله النبي صلى الله عليه وسلم وما ذلك على الله بعزيز السلام عليكم ورحمه الله وبركاته